ñu ngi nuyu ñëpp presse bi fi teew leader yi ñu bokkal taabal bi euh, sénégalais yi ñuy seetaan ak fu ñu munti nekk di tàmbalee sama kàddu ci jaajëfal euh, suñu mandataire national monsieur Déthié Fall ndax liggéey bi métti na diis na te coow li bëri na ata yi day jóge fu ne waaye il a su garder le moral et le en tant que bon soldat pour continuer liggéey bi te dara perturbé wu ko ba tey mu dem def li mu war a def def ko nag avec rigueur ba yàlla wone ci lii mu ci wone lii nag mooy yeewi askan wi ku yaakaar ni mun nga atteindre yeewi askan wi ci ay attaque ay complot ay manœuvre yoo xam ne day jóge fu ne nag ba foo ko foogewul defe naa dangay nax sa bopp lii Cheikh Tidiane yum di wax ni ku xamul luy laytaayu yeewi askan wi dinga nga lot ci ay pexe yoo ko nasaxale waaye boo moytul yow sa bopp yaay mujj surux ci pexe yooyu Yewwi Askan Wi c'est d'abord un esprit te seetlu nañ nag li dese adversaires yi adversaires yi fu ñu féete nag laa wax ndax bu leen foog ni adversaires yi ñu sori rek lañu mooy léegi xëy suba ngoon jot ba jot di sos di xool nu ñu defee ne dañoo bëgg a féewale xalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko wala Déthié Fall ak Cheikh yum Youm wala Ousmane Sonko ak suñu sëriñ Mas euh, euh, Mansour si Djamil yooyu ñun daf ñoo def reetaan waaye loolu mooy pexe bu jeex ci ci noonu dem nañu ba xam-xam amatul pexe amatul wër di sos subaak ngoon moo leen dese. waaye yeewi askan wi li ko lal ak li ko téye ku foog ni caaxaan dina ko fi dindi da ngay nax sa bopp kon ñu dellu sant yàlla ñaar bi ñaareel bi it mooy di ñaawlu di naqarlu taxawaayu ministère de l'intérieur le nouveau défenseur d'une certaine société civile ministère de l'intérieur lii dafa firndeel ni caaxaan lañ fi nekke ndax koo xam ne nee nga def nga contrôle juridique ba jël listu Dakar ne dañoo tegle ay góor waaye sa contrôle juridique mayula nga gis ni listu nationale benn bokk yaakaar dañoo tegle ay jigéen kon li mu firnde mooy listu benn bokk yaakaar kenn contrôlé wu ko ba pare ñu bëgg ñu jox ñu jël leen au ku fi critiquer administration ñu ne waaw moom nii moom naa dafa bëgg a yee fitna foo ngeen ni lii jaadu na ñoom xanaa dañoo gumba léegi nu ñu mënee tiim liste ñaari jigéen ñu tegle leen 43e ak 44 ñu ne gisuñu ko te acharné wu ci listu Dakar deux poids deux mesures yooyu nit ñi bëgg ñu continuer di ko nangu ci réew mi bu dul woon tey vigilance su Déthié Fall dem jël temps xool man bi ma wooyee wax ma ko moom ak xalifa dama ko ne est-ce que Roqaya du góor wala a du góor ndax loolu mënul ne ndax loolu day am léeg-léeg ah, gis nañu ay góor yu yor jigéen turu jigéen wala jigéen yor turu góor mu ne ma xaaral maa ngi maa ngi jël dossier individuel yi pour bu dire que lii mënatuñ ko wëlbati parce que boobu ñoom xamuñu moom li mu doon li mu doon xool lan la mu ne xaaral ñu ngi may jox dossier individuel yi bi mu jëlee dossier individuel ba jël référence yi xam nga bu ñu nee may Maymuna Roqee Ndaw fii dë Maymuna Njaay fii dë kooku moom amatul lu ñuy lam-lame kon ñii sérieux wuñu dañuy tappale dañuy jël liste Benno Bokk Yaakaar jàllale ko d'office daldi di acharné wu ci list nag opposition bi di xool ban virgule moo manqué moo tax keroog wax naa ko administration bokk na ci ñett yi ma lim keroog ne suñu moytul ñooy taal réew mi parce que nit ñi mun nañu continuer di subir comme ça lu neex Macky Sall neex na leen amul loi amul règlement loolu du yoon ñetteel bi nag mooy lii lan la firnde li mu firnde mooy Benno Bokk Yaakaar yaakaaram tas na mënul am liste nationale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 loolu yoon da cee wax lu leer jaru sax ñuy wax jurisprudence constitutionnelle parce que la loi n'est même pas interprétable xam nga fu loi leer kenn du interpréter dañ ci am benn bu ëpp tata mi mi wax na ko nee na dañ dañ leen bëggoon woon sax moo tax ñu yokk ci benn moom xam na ni su doon lool dañ ciy yokk téeméer wala junni waaye duñ ci yokk benn daf leen rëcc looloy dëgg ji kon conseil constitutionnel liste nationale kenn waxatu ko l'ensemble des listes de Benno Bokk Yaakaar la ñu wax ils ont un parrain de plus ils ne peuvent pas compétir lii nag mooy dëgg ji kon dafa am loo xam ne nag yéene la boroom a ci mujj mujj surux ñoom seen yéene bi ñu amoon jubal ko ci waxuma la rek yeewi askan waaye opposition bi yépp ñoom ñoo ci mujj surux sénégalais yëpp nag la ñuy waxal réew mi ñun ñoo ko bokk réew pour mu dox il faut que li ñu tëral ne lii mooy charte bi ku mu war a appliqué wu ci yow mu appliqué ko moo xam Macky Sall la tudd moo xam xalifa Sall la tudd moo xam euh, yow it Sall nga sant sax di <laughs> bon moo xam Ousmane Sonko la tudd ku mu war a dal ci moom rek na dal ci moom.